J'écris la vie, j'écris la mort. Mam Tiermondiaïdo, je veux partir, je voudrais te revoir. Car inattendu, fut ce matin, tu nous as quittés. Et inoubliable restera toujours ton soudain départ vers l'éternité. Ma vérité, elle, me suivra au parloir. Et j'espère juste arriver à bon port. Miroir de ma vie. J'ai vu l'évidence et la Je sens la peur sur le sentier du voyage. Ma destination pointe sur cette page. Je veux voir et accomplir ma race. Miroir de ma vie. Miroir de ma vie. choisi d'écouter mon voix intérieure, pas l'opinion aléatoire des autres. Donc, la direction est beaucoup plus importante que la vitesse. Boum Beaucoup vont très vite, mais nulle part. corruption de la connerie humaine moi la vie m'a mis au défi à plusieurs reprises mais cela ne va pas m'arrêter chaque fois que je tombe j'essaie de trouver un moyen de me relever continuerai à me battre. Bien que j'ai été blessé trop de fois auparavant, je suis devenu tellement plus fort. L'ignorance <laughs> L'ignorance est la nuit de l'esprit. <laughs> Il nous salue. <laughs> David, il nous salue. Nettoie. Let me breathe. Let me breathe. Let me breathe. Let me breathe. Let me breathe. Let me breathe. Let me breathe. C'est en passant par la sécheresse qu'on apprend à gérer. la noblesse sont des exemples de valeur morale. coonee su ma julee su ma julee su ma julee la Je me demande pourquoi un nom devrait absolument dire quelque chose. J'ai connu quelques le bon du mauvais, le pour et le contre. Demain, il sera situation arrive, je vais crier haut oh, Bravo. Interpersonnel. Bravo. Et quoi encore Et le conflit interpersonnel. Et le conflit intrapersonnel. Donc aujourd'hui, l'objet de notre leçon porte le conflit interpersonnel. interpersonnel. Très bien. Donc ma question est la suivante. Qu'est-ce que le conflit interpersonnel selon vous Monsieur, oui. C'est le fait de ne pas être d'accord avec l'idée d'autrui. Qui dit mieux qui dit bien, oui, le fait de ne pas être d'accord avec les idées d'autrui ne caractérise pas forcément une situation de conflit. Très bien. Vous voyez chacun a sa manière de définir son concept. Donc vous allez m'écouter, je vais définir le concept de conflit. C'est bon Vous avez compris Le conflit intervient et se caractérise lorsqu'il y a affrontement de deux plusieurs volonté individuelle ou collective qui se manifeste les unes à l'égard des autres. Une intention hostile d'une volonté d'agression à cause d'un droit à retrouver ou à maintenir. Mais monsieur. Oui. Comment résoudre le conflit Très bien. Une très bonne question. Il faut toujours demander comment on peut résoudre un tel conflit. il est très important de faire comprendre aux adversaires ce qui se passe entre eux, au lieu de les amener par la contrainte vers une sorte d'entente qui ne tiendrait pas compte de la réalité de leur situation. Vous avez mm. Très bien. Monsieur. Mm. autre question mm. Oui Comment se manifeste le Très bien. Ce sont des désirs contradictoires qu'un sujet peut approuver. Un sentiment d'ambivalence, une sorte de déstabilisation affective. Là, on parle de conflit psychique. Mais monsieur, ce conflit psychique est une maladie? Non, pas forcément toi aussi. Pas forcément. Vous voyez, chacun d'entre nous vit à des degrés divers. Ce type de conflit interne qui participe à la formation de notre personnalité peut accéder à des changements positifs. Mais, comme tu le il peut aussi provoquer des états telle que la personne puisse en venir au mépris de soi, voire même le suicide, s'il ne considère qu'il n'y a pas d'alternative. C'est compris eh, À la maison, monsieur. À la maison. Oui, monsieur. Après l'éducation physique, c'est nécessaire pour que je prenne un bain. Mais comme mes tes camarades, ils sont là, ils n'en ont pas besoin. Monsieur, certainement, c'est pour cela, ça brûle, ça brûle, n'est-ce pas Et eh, ça brûle, ça brûle, eh, eh, Silence Silence Mais c'est un retard de 30 minutes, c'est trop quand même. Mais, mais monsieur, que voulez-vous que je fasse Que tu viennes à l'heure comme tes camarades, Ken. Bon, à ta place. Mais Ken aveva dato il de dialogue suis quelqu'un de réservé en général. Je trouve toujours pas les mots pour exprimer mes sentiments pour toi, mon amour. ignorance plus pouvoir égale dictature bien comprendre et sa dignité. Alors courage, c'est le bout du tunnel. Bon, faites le tout pour qu'elle revienne. Ah non, non, non, ah moi, mon devoir c'est d'aller la chercher. Mais monsieur, je vous conseille de ne pas y pourquoi Parce que qu'elle vit avec sa tante. Oui, sa tante, une femme qui ne réfléchit pas. Mais où est sa moi. quelquefois la fin. Avant qu'elle ne soit là.

gagner. Car les plus importantes leçons de vie, on les apprend à travers la douleur. Reste toujours mature pour comprendre que la colère ne règle rien. Koumba ñu ngi franchement ñëpp kontaan nañu ci sa prestation voilà Lébu Ndoye ñu ngi invité Ibrahima Ndoye Lébu ñu ñaan nag salle bi ñëpp toog waxtaan bi tuuti parce que loolu am solo félicitation Koumba avant mooy dugg ci nga xamante ne mooy fu ne falaa ndax Sénégal dafa rëy. ñi nga xamante ne ñooy délégation yi jóge Sénégal laay wax parce que ñeneen ngeen seen ci gannaaw ñëwaguma ci officiel yi 35 jeunes lañ yoo xamante ne gannaaw yàlla danoo liggéeyoon ak académie bi résidentielle seen première promotion ñu def ko à Dakar tey deuxième édition ñu ne Louga lañ koy def si ko fii nii te ba muy am kenn ku ne xam na ne ki ñuy wax Badara vraiment nooy wax rek dafay am souvent motivation ko la dëkk lam for def ñu koy def mais deful ngir ngistal xale yi nii yàlla xam na ne bu taxawee dañuy yem fenn li muy seq xale seet du ko seq ak man mi te c'était très naturel këram bi ci Potou dafa ma ne bis bu ñu jàppee kii bi nañ jël résidentiel yi moom il prend tout à Potou mu lépp lépp lépp la jëlee à produit lépp transport restauration moom moo ko jël pour que ñu def deux jours pause yi pour eggale création bon boppam la ko defal moom dama yaakaar ne aar bi ku fi ñëw rek da nga war a augmenter benn pierre bàyyi keneen augmenter keneen augmenter. waaye li tax ñu teew fi tey mooy Arcos dafa avalisé académie de théâtre parce que Arcos. kii objectif am bi ci jiitu mooy la formation ndax métier boo koy def danga ko war a jàng kenn xëyul rek ubbi sa atelier ni tailleur nga di laaj tissu ñu la koy jox ngay dagg bu boobaa waxuma la police ngay fanaan def wala balaa ngaa polis nañ la tàpp ba nga nooy moo tax ñu ne nit ñi dañ la war di former ñu amoon xalaat ñun créer ay académie far yàlla def mu commencé ci Louga. ci Lébu Ndoy ñu ko ci gërëm di ko ci sant loolu benn euh, beneen bi ñun ñu gëm ni dañ di war di def ay spectacle parce que spectacle li ñuy def mooy tax nit ñi di gis théâtre bi di ci ñëw di xam li ñuy liggéey lan la ci loolu nag président am na loolu solo lu mu wax sànq ma ciy profité di remercier Pape Dieng mi parce que ca këram la ñu wàcc bi ñu ñëwee ba léegi mu teral ni moom ak soxnaam ñu leen di gërëm bu baax a baax di leen sant ñoom waxtaan wu ñu doon waxtaan ci lii nga mujjee daaneel sur les valeurs ñuy wax ni léegi audiovisuel bi liñ ciy xewal di ko ci wone bokkul ak ñun suñuy valeur tey jii boo ñëwee ci internet bi ak nga ñëw ci presse bi dama yàlla baalu fa ay politiciens nekkee lu ci bari ñoom it sonal nañ ci loolu parce que li ñuy wax ak li ñuy def loolu suñuy valeur amatuñu jom amatuñu kersa amatuñu ngor dootuñu muñ ku ci nekk da bëgg a falu tey. di gërëm sunu waajur yi nga xam ni lu ñu ñu mel rek ñoom la di gërëm tamit sunu kilifa yi toog fii tàmbalee ko ci Babacar Sarr suma papa Njawara na le toog sama nijaay yu sumbargaan kon ñun lu ñu mel rek yéen la kàddu nag du. gudd ndax li tax ma obligé jël parole bi mooy jëmu ji dama ko gërëm lool muy Lébu Ndoy ndax daf ma takkal titre boo xam ni mënoon na ko takkal ci luga ñeneen ku dul man waaye jël lu mel ne parrain académie bi ni ma yow yaa ñu doy lii dañ la ci jiital ah dama koy nangu rek ndax li tax ma di ko nangu mooy moom dafa nekk ci Louga di def ay ay miracle ma xam ni kii ku ko jàppale rek mu mu mu raw ndax euh, li muy def docteur la docteur buy faj la te ku feebar ñaan nga yàlla gis docteur bu mën a faj mu faj la moom docteur Louga la leen di remercier ma leen di seedeel ne leen man bu may gëj quatre-vingt-six laa fi gëj quatre yéeg xale yi ñu bari judduwul boobu ba léegi fàttewuma cercle de la jeunesse bu Louga te duma ko fàtte ilaa yow parce que seex la ñu woon ñoom ak jamonoy tey waa cercle la jeunesse bu ñu jugee waan Europe suma kër bu tuuti gaat fa lañ daan fanaan ñoom ñëpp diggu kër ga tey ma ñëw fii dinaa leen seedeel lool man kenn du ma solal waaye tey solal nañ ma Louga man kenn du ma solal mooy dugal taxaw dugal taxaw man ginaaru kenn nenu ma lu may wax day leer dafa ma jox ma lekk jox ma ma dëkk Louga tax mu def ko booy je vous remercie on vous remercie voilà ah on vous remercie ma leen di xamal ne leen bi ma leen gërëmee sant leen xale yi maa ngi leen di xamal neleen leen fi ñu jàpp nañ ko jàpp ndax dañ ko rafle man ku tudd théâtre ma gestu yàgguma ci lool ay quarante quelque rek laa ci def ma leen di xamal ne yenn yéen ñi yëkkati lii yéen ñi ciy jàpp di directrice ak keneen ak keneen ak keneen aar bi tax la jóg yàlla na leen yàlla jox lu kawe seen jox fi ñu toll ci Sénégal ba yéen ñëpp ngeen gëm ñu bugguñu dara jay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngeen toll fu ko raw ak si merci jaajëf